waaw man nag wa taala wa barakato. bisimilahi sar bone sar sar bone yo bone e dam jam yeeso. latin fatin jaban muskora kumbe bete sire bete kumbe bete sire bete. mir mbar mbor mbarara mbor mbor. non sa yaram dafa tàng gis nga bu kii nii jos euh, bu waxee ma amatuñu dara loo xam si li ñu wax gis nga affaire u làmb yaa ngi dégg li may man bu bëggee làmb moom mi moo ma dugal ci làmb moom laa daan àndal mu naan ma ponkal nga deel entraîné boo entraîné lu la neex da nga koy moom mii sama rakk ma bokkal ndey ak baay moo daan may contact euh, rakkam garga maag moom kii magam moom bokk na ci ñi ma jàngal métier Tafa. Mhm. Tafa mi ne mhm. kon maag moom ay lamp boole wuñu booy fay mi tamit magam mooma doon jox oto may liggéey mhm. ku mu bokkal benn ndey ak baay ñu koy wax baraam kon ñii maa ñoom ay frère lañ quoi mais ah, ba bu gannaaw yàlla ak yonte bi bi ma ma sant samay waajur sant waa parcelle un ba vingt six di sant ñi fi nekk ñëpp waa doole waa éco di sant ñi nga xam ne suñu dëkkandoo lañ muy ñi jëndal kër ñi ñëpp ñi sant Diatta ñoom Aliou Diop bàyyiwuma kenn ñi fi ñëw di ñëpp ñoom Kalidou bàyyiwuma kenn waa Inte 4 di sant nag waa sama koñ waa jàkkaarloo ñoom ñi nga xam ne sama keesu néew mi keesu waa jàkkaarloo xam ñoom ñoo ko yor waa keesu néew day ñoom esat mais ci dund bi lay yaa ngi dégg mais euh, tey jii ñun dañoo war a sant bu baax dos mi parce que tey jii nii làmb mënoo ko wax ci parcelle te doo ko wax yaa ngi dégg loolu dafa dem xeex lu bëri ñëw indi ko man lépp fi la ma man làmb nekkul ni loo xam ci comme dama tëb tam rek dugg ci làmb man Moustapha Gueye sama papa moo ko daan yóbbu fëne di koy wutee di gàllaaj daaw daa ngi moo ko laajee moo moo ñu yar boobu ñu ngi xale yu ndaw maa ngi koy fàttali yaa ngi dégg loolu boobu laa daan gis moom ma ni la waxal ci combat bi léegi nag waxal nga sos li mu wax mu mel sas bi yéen na waa parcelle ñëpp a ngi di la boosté ngir nga am ndam ci kaw wuli wuli nag ku ko xam xam ne day xeex Fall man Sénégal ne na man maa man si def nit musul def di dem stade yóbbaale loxo bu damm kenn def booy fee a ngémboon di sant baax nag lamb dama koo bàyyi woon ba ma nee ba jël si tey kii moom ci indi muy pël bu rafet bii kon moo ma indi ci làmb man bàyyi woon naa làmb dem yeneen mais moom moo ma fekk Gambie ni ma ñëwal ma dëggal a combat mu dugal ma ci combat mbay guy gi ak euh, Mambala bi ñu bëre xam doomu aadama olof yaa def ne bu bu bu lëg lekkee lan. alors na ko gërëmee na ko gërëmee cooy waaw lépp moom la ba pare ko tuddee ko doom. comme baag ma maa ngi moom ni ñu boole pare na xëy na nag am na moom lu tax wax loolu. sama yaay la sama lépp la te dara du ko dindi. waxal ci bi sa diggante waxal wuli waxal bi ma ne sa diggante pël bu ne xam na ko. waaw mais mais dama war mu leer fii. waaw waaw Zoster. ah ay comédien ne fi ay mbër moom mi xam ne dama bëgg nga wax ci combat bi jàkkaarloo wulli wax ak moom. sa waay xanaa bàyyi ngay wax wax ak wulli xanaa gisoo sama cicatrice bi cicatrice bi contact ama ko jox. xoolal cicatrice bi ngay gis. sama nopp yëpp dafa yàqu ndax ay contact bu dee ay dóor jëru may wax parce que sama rakk ji fi nekk muy daado mu sonn ci ñun di suñ coach daado mii di suñ rakk di suñ coach Gàmbi laa nekk mu may woo ñëwal ñëwal ba ma ñëwee mu may teg lu kere ba ma jógee Gàmbi ca jour ba damaa ñëw écrire ba contact di ànd ak ñoom Boy Faye avant may dem stade dama doon ànd ak ñoom Boy Faye di xëy man ak moom ak giro ñuy yeew di dem di entraîné ji non lamb ji la 11 soretul gis nga diggante bi wax li may wax am ko la 11 incha allah rabi li may wax du ma wax dama ni bu soobee suñu borom incha allahu bu soobee suñu borom le 11 waa parcelle dinañ kontaan le 11 incha allah waa parcelle dinañ kontaan bu neexee yàlla loolu man maa la ko ma gisee nga xam ni fi mu toll nii tey jii mbër mee ñëw. moo ñëw laa la wax tey bu njëkk gannaaw na daan ñëw bii yoon nag vampire bi moo ñëw. wulli dégg nga lim la waaw déggoo li ma la jógee yow xanaa déggu yow wulli yow yaa di wax ak moom moom xam na mu baax nee naa la xeexal naa ko xeex xam te gàmm bi ba année bi ma fa jugee nit mësu koo xeexal moom xam na ma di wax dimanche kan la ñaari fan a ci des. bu soobee suñu borom incha allah dimanche vampire bi dana ko lekk. loo koy def may def yem foofu. Uh-huh. bàyyi ma yem foofu incha allahu rabi. wuli nee na di ñaanal booy fay nga xam ni. waxee sa combat dama koy ñaanal maa sama combat la on dégg li ma bu soobee suñu borom. lan ngay def wax baaxul la on dinaa ko lekk waaw dinaa ko warax wann dinaa ko yëy yow ñaata yoon naa la wax man la dinaa ko wan wala da ngaa bëgg wan ma wax dinaa ko warax wala dinaa ko mugut mugut yee di sant nag ñi fi nekk ñëpp wuy am na ñoo xam si dañuy ñaana dañ leen di sant di sant ama sama booy bi nga xam dafa sonn ci man di sant mbëri fi jóge ñoom daam seen bàyyi seen lépp ak ñoom ak ñoom Calla euh, Meer ñoom Bogel production Garga 2 ak sama euh, ñoom Kung Lao ma kenn waa parcelle ak suñu booy ne fi ñoom bébé Garga booy Giro parce que il faut ñu sant suñu booy fi ne mais lépp da nga ko jël jox ko teg ko ci loxoy sos mi di sant ñang baala di di ñaanal ñi nga xam dañoo génn àddina ku mel na moom la ñu waroon a jëkkee Ramdaan fii defe defee lépp yal na ko yàlla yërëm xaaral ko àjjana Moussa Balla Gaye ak grand Moussa Dioum nga xam ne sama combat bi passé moo sonn ci man di ñaanal waa Parcelles ñëpp ko amul combat yal na leermaan may combat di ñaanal suñu rakk Kalidou tey li am fi lépp moom la duñ ko mës a bàyyi di ñaan sama rakk yi ne fi ñoom Moussa Ndiaye ñoom euh, Laay Sabali ñoom booy fi nekk ni ñëpp bàyyi ma kenn ñoom Fallou ñoom Issa autorité yi ne fi nañu may billet parce que amuñu ay billet te fii am na autorité fi nekk waaw jaaj jaaj mi nga